ziar di leen sargal bu baax a baax la si sama mita Amadou Mbégte dellusiwaat ak yéen di santat bu baax a baax ginnaaw bi mu ñu mayee wér ak wér la ba ñu dellusiwaat ci seen émission bu mag boobu nga xamante ni nag moom la ñuy woowee leçon de vie tey nag ma daal di seet si nag benn ndaanaan bu mag muy suñu yaay ñu gën ko xam ci kenn yaay madame Soxna Kane nga xamante ni nag groupement bu mag boobu maanaam ñu gën ko xam ci GIE boo xamante ni mu ngi nekk fii ci biir yëmbal nord bu ko defee rek bala ñuy def dara rek ñu gën a xam li nga xam ne ci lay yëngu mun yow rek ne moo di la bàyyi. maa ngi fay mami di mm-hmm. di kontaan ci tey bi ngeen ñëwee seet si réseau takku liggéey takku liggéey boot groupement yoo xam ne quatre-vingt-dix groupement di femme mm-hmm. man ma nekk présidente bi. Mm-hmm. Asi Diouf di vice présidente bi. trésorière bi ak secrétaire bi ñoom ana ñoom Kole mboolem jigéen ñi fi nekk rek daal jàpp ci liggéey bi jàppale ma tey ñoom ay ay fatkuli xalé yi dal bama ma fi si fii ak ñoom Kole Fall dima jappali ci liggey bama ma fi tay ba ngeen mëna dégg sama liggey ba ñëw fi dima seet alors yaay boy ñu lay jaajëfal bu baax rek ci cadre yu rafet yi nga xamni yëkëti nga ko mm. kon nak bala ñuy dugg ci biir waxtaan bi bala muy xoot ñi nga xamni ne ñoo lay seetaan suñu mama soxna kan mm. ana lan nga leen di wax kan moy mama soxna mm. wa soxna kan euh nit ku xébu la ko xam yalla moko ko indi ñu and rek di jappalante di jappal nit di doom te yàlla rek tax bi ma ñëwee fi yàlla indi ma fi ma fekk fi ñoo xam ne yaatal nañ ma si dëkk bi mm-hmm. may liggéey sama liggéey ñëpp ñëw di ma si fekk si di ma jàppale ma bëggoon rek jigéen bu avancé tey ba yàlla eggalee ma fi ma yegg tey am na solo kon yaay booy ba tey rek uh, ci biir waxtaan bi nga xamante moom la ñu fas yéene sekk moom mm-hmm. ñuy rappeler internautes yi nga xamante ni yéen ñuy Soxna Kane uh, nekk présidente uh, li nga xam ne mooy ànd takku liggéey yëmbal noo ko yaay booy ñu bëgg rek nga wax ñu tuuti rek sa intégration maanaam sa création li nga xam ne mooy GIE bi mm-hmm. naka la demee naka nga def ba loolu ñëw ci sa idée bi si sa xel waaw xam nga jigéen moom boo jiitee ay nit leen jàppale yow mi présidente balaa ngaa jël kenn da ngay njëkk a dëggu jub di jubal soo ko defee koo woo dina la wuy si loo am nga bañ leen a nëbbu wan leen li nga am ànd ko ñoom te ñi damaa yàgg ak ñoom depuis 2001 laa fi ñëw di liggéey sama liggéey si politique laa njëkkee bi ma demee nag sonn ci politique bi gis coono yi ma ciy jànkonteel si laa leen na ñëw leen ñu def suñu développement développement mooy avancé àddina mooy avancé réew mm-hmm. te gis nañ ci suñu bopp ndax ñu ngi fajal suñu bopp suñuy soxla di ci liggéey mm-hmm. di jàppalante suñu biir kenn amul benn problème ñun ñëpp ñoo bokk lépp li ñuy def su ma fi nekk su ma fi nekkul ñu ngi liggéey liggéey bi muy continuer. am na solo bu baax mm-hmm. booy su ma déggee si say biir kàddu mu mel ni depuis 2001 ba tey moom ngeen euh, dëlmal li nga xamante ni mooy liggéey bi maanaam boobaak léegi def na 23 euh, ans su ma juumul ndax ñu ngi ci 2024 ku ne xam na ni liggéeyu 23 ans du liggéey bu ndaw est que mën nga wax aussi ban euh, lan moo la dooleel ndax dañuy gis ni jigéen ñi euh, d'habitude dañuy làmb dara bu ñu defee benn at ñaari at mu xaw a dëgër ñu bàyyi dem seeti leneen mais yow lu tolloog ñaar fukki at ak ñett nga jàpp boobu ba tey bàyyiwoo mhm. lan mooy secret bi waaw secret bi mooy li ma wax rek jub jubal dëggu ànd ak ñoom ci dëgg ñu mhm. topp ma may ànd ak ñoom ba tey femme de développement boo gis ci Sénégal rek mhm. bëgg na ñëw liggéey ak soxna kan depuis àddina yëpp wërngal këpp ñu bëri xam nañ ma si sama liggéey si jàppale jigéen mun nañ suñu liggéey yëpp ma leen ko jàngal ndax ñoom ñii demuñu dikkuñu de dañoo toog fi jox ma ngëm-ngëm ma jox ma cër may dem wuti ñëw di leen indi. nga ànd ak man rek am ngëm-ngëm topp ma loolu moo tax nag ma jàppale leen sa suñu ci kenn nag mais ñu ngi liggéey ak suñu propre moyen li ñu am daal di ko wàjjiwul ba te suñu xol moom la ñu ànd ak ñoom di liggéey ah am na solo macha allah euh, yaay booy mu nekk kàddu yu rafet yoo xamante ni dañ koy saluer euh, maanaam bu ñu la déggee euh, depuis boobaak léegi yoon bi sori na metti na mais amul kenn ku leen ci jàppale est-ce que mën nañ xam également aussi boobaak léegi Euh, lan ngeen jot a réaliser ci gàttal rek lan la xamante ni mooy euh, ànd taxaw ta parce que da ngeen ne tour bi ngeen woote da ngeen ne ànd taxaw liggéey parce que gis gëm nañ ni yéen a ngi liggéey ndax jot nañ gis li ngeen def waaye nettali ci gémmiñu borom la dàkkee kon ñu bàyyi la rek taggu liggéey moom ñun moom lañ tuddee suñu GIE am kayit yëpp nag te ay jigéen ñu mànkoo jàppalante su suñu biir mooy ku am sa dërëm indi ko am sa tànk indi ñu koy wàjjuwal ba ci di ko dajale di dimbale bu tabaski jotee ñu toj suñu ay vingt 27 million liggéey ñoo ko liggéeyal suñu bopp. ñoo koy nattal suñu bopp lebuñu fenn suñu ñaq boobu lañ boole ànd ak man ñu gëm ko suñu defaree saabu jaayal suñu bopp. bu ñu liggéeyee liggéey ci liggéey boobu laa liggéey tey. Mhm. si àddina ba ma daar gis sama liggéey jël ma xëcc ma indi ma seen wet. d'accord. alors fi nga daanelee rek yaay boy fa la ñuy yëkkatee ndax xam naa dañ koy gàttal rek ndax liñ naan li duuf ci nag bi yëpp xamul ci cin li waaye ba tey rek dama dégg nga wax sa collaboration ak ñi nga xam ne mooy waa Madaar te ku ne madar wax setal ndax dëkkuwaay bi daf ko soxla maintenant bala ñuy dugg ci loolu bëgg nañ xam li nga xamante ne mooy seen GIE bi yan façon activité la ñuy faral di def ci biir GIE bi. waaw suñu GIE bi am nañ daara am nañ daara alphabétisation ñu ngi jàng. am nañ yombalkat di sant toujours duma ko taay wax waa Alpha Def mhm. président bi di Mor Jaxate bi ñu gisee ñu ay jigéen yu takku dëgër di bëgg suñu liggéey dafa dem wutali ñu euh, daara indil ñu ko mhm. parce que jigéen mënul liggéey te jàngul soo jàngul lépp looy liggéey war nga produir lu nekk siroo loo mënti def ci àddina danga war a xam quantité bi di ko bind di ko li ñu deful na nag moo tax mu ñëw indil ñu daara ñu ci jàng di def suñu ay xayma di dajale te kenn xeebu ci sa morom lu ci waaye xam-xamal ko sa morom ñu ànd di liggéey ñoom daal dañ maa gëm rek topp ma te yàlla tax du dara lu ma leen euh, ba tey rek ñuy desandiku tuuti rek ci li nga xamante ni mooy wàllum formation yi ndax dañuy faral di gis dañuy jàngale mm-hmm. ay transformation ay produits céréales ay jus ak ay nu ñuy defaree ay madaar ay saabu est-ce que yéen euh, mën nañ xam bu fekkee ne am ngeen ko naka la ñoo leen koy accompagne ndax yow yaa leen koy jàngal wala da am ñoo xam ne ñoo leen ah, koy ñoom ñëpp jàng nañ na mhm. quarante femmes yi fi nekk mhm. ku ci nekk def nga formation ba am loo mën mhm. lenn rek laa nanguwul produire muy madaar ndax dañ maa ji teraanga ma ànd nag samay ñeenti morom ñu ànd ko ba tey bàyyiwuñ ñu jàpp ñu téye ñu bu baax commencé par directeur ba ba ci suuf ñëpp ñu bëgg loolu moo tax nag métier boo fi gis mën nañ ko dañuy produire saabu ñebbe siro lépp lu jigéen di liggéey ñoom ñii mën nañ ko waaye madaar moom kenn du ko fi liggéey kooku moom dama koy bañ <laughs> du ma nëbb sama ba tey yaay booy waaw dëgg la niñ euh, ba tey rek dañ lay nangul loolu ndax gis nañ euh, sa collaboration foofu laay jëm ak yow sax nag ndax fi nga daanee lay léegi daf ñuy permettre ñu mën a dugg ci madaar bi mm. sa diggante ak waa madaar sant rek di gërëm ndax nit moom ku gërëmul nit rek doo ku gërëmul yàlla doo mën a gërëm kenn mm-hmm. dafa am koo xam ne madaar bi ci sa loxoom la jaar muy sama naw le di gor comme man ma dajeeg moom ñu jox ko liggéeyu madaar bi muy awa kayta duma ko rusa tudd ci biir mbooloo mm-hmm. madame Diop joxoon ko ko bu madame Diop mooy Ndey Mbaru Diop mm-hmm. bi ko Ndey Mbaru joxee mu ne ko a ah, mu ne mu yebal ma ne ma dama am liggéey buñ ma jox te mënuma ko fekk ñu voyagé woon bay ñëw xamuma sax nag moo ma ko na ma bëgg a liggéey si Madaar dama bëgg man ne ko ban liggéey la mhm. mu ne ma Madaar ne ko ah man de mënuma mais boo ñëwee daal ma jëm yor ay groupement femme mhm. bi ñu ñëwee nag si la former femme yi jàppale leen wan leen ni ñuy def di liggéey ci Madaar ba seen kees taxaw jàppale leen ni ñuy def ba duñu lepp li ñu am yemale ko ci Madaar bi di ci liggéey mhm. mu jural leen njëriñ yu bëri ma di ko ci sant di ko ci gërëm nag léegi nag ma dem ba liggéey loolu ànd fa ak ñenn nit ba waa Madaar am ngóoree fal ma seen présidente ba pare defaat ma seen ambassadrice fal ma ci àddina takkal ma or yoo xam ne ma sant leen gërëm yóbbu ma màkk kooku nag yàlla mënatul def lenn lenn ba muy produire ay madaar sama kër parce que man gor laa waaw <laughs> suñu yaay booy defe naa kàddu yu mu wax rafet na ah, defe naa liñ naan rek ci olof bu lëkk gërëmee ah, cooy bu lekkee olof naka gërëmee cooy waaw defe naa euh, mooy li nga wax léegi nii ndax tamit kuy xalam di ci jaay waaye dara dul dara nag mm. ah, defe naa kooku mënoo ko bàyyi ndax leneen mais mm. nag li fi wax yëpp am na solo dég nañ branche yi ñu fi cité yëpp nag ni yéen a koy def ci biir groupement bi mm. ah, ñu bëggoon a xam aussi tamit que wax nga ñu ni da ngeen boot ay groupement yu bari yoo xam ne yaa ngi liggéey ak ñoom est-ce que ba tey nii pare nga pour liggéey ak ñeneen ñoo xamante ni bëgg nañ intégré ak tey jii ku pare woon pour ñëw liggéey ak suñu maman ci ban yoon lay jaar pour ñëw pare nañ tàll ñëpp loxo parce que loolu moo tax bi ñu liggéeyee ba nga xam ne euh, année bi ñu pare pare nañ si at bi ñu pare mm-hmm. ñu war a dem màkk ma madaar yóbbu na leen ñu dem màkk mm-hmm. ñi fi des ñu leen di ñaanal yàlla ñoom it yàlla na bii yàgg si ñoom ba ñu mën a def comme ñun mm-hmm. jaar si jaar lépp rek jub moo ko jiite lépp looy liggéey si àddina na nga si jiital jub soo jubee di nga dem man ma daal mosuma cee teg juróomi dërëm su suma la ko waxul xaw ma sax nan la ñuy war seet damay jël rek damay jël rek Euh, oto bi mhm. jox ko xale yi nga xam ne ñooy liggéey ñu jigéen ñi yóbbul la sa kër suñ ñëwee bindal la sa reçu jox la masumaa xam ne madaar dañ ci teg juróom wala fukk masuma ko cee teg loolu damay toll di ko wax fépp ci Sénégal ndax doomu aadama bu jóg di dimbale ay nit da leen di jàppale te yàlla tax soo leen bàyyi fi nga bëgg a yegg ñu yegg fa mhm. lool laa liggéey groupement yi ba ñu gëmm tey ñoo ngi ci 37 groupement mhm. ñu bokk madaar madaar jox nañu loobu gis nga ko àddina bi yëpp lim ñu indil fi yëpp lañ ko séddale jox ko groupement di famille pour bu ëllëgee ñeneen gis loolu mën a sawar ñëw fu ñu am sargal ñu fekk leen fa maak sama mbooloo mi di gërëm tamit sama benn naataango wax ne teew na ci biir jataay bi mm-hmm. duma ko taayee di ko wax muy aw jën di sama rakk magam laa doon àndal mm-hmm. mais sama liggéey moo tax mu taal otoom bàyyi lépp ñëw si fii ma dëkk ci àll ba ñaax di yëmbal noor mm-hmm. di ma topp gëm ma lu ma ko wax doy na ko ak moromam yi mel ni moom kii nga jàkkaarloo muy Marème Awa kooku moo ma yoral lépp ma ñëwee yëmbal moom laa dal si këram am kër kon dama ko delloo ginnaaw di gërëm ñi nga xam ne ñoom may jàppale leen tamit si liggéey bi macha allah muy ñuy toog estaf yi ñi nga xam ne ba ma commencé ba tey maa ñoom la dara raxu ci ñenn ñi ñëwaguñ muy aana di Kole Fall di Mati toog di male mi nga xam ne barki démb rek na ñëw Faat Koli Adama Senghor as Aysata Saw ñii ñoo yore xaalis bi di fi liggéey di gërëm nag nday daara ji ñu ne toog muy Adja Jatu Fay Euh, euh, euh, top toftal bi dafa dem toftalu njiit bi dafa dem voyager ñu koy ñaanal yàlla delloo ko si jàmm di la xamal ne daal waa takku liggéey. Mhm. ñu ngi ci seen jàmm ju ne ñaay toog ci seen xaalis di liggéey lebi wuñu ñaan wuñu ku ñëw nag dimbali ñu ñu jël. mais demuñu fenn nag ñoo ngi toog ci suñu yalwaanu taalibe daal. kuñ ci fekk xam ne loolu nga ñu fekk. yaay booy ñuy rafetlu kàddu yi bu baax rek euh, di wax ni ba tey rek lii lañ ci jublu loon seen émission bi nga xamante ni nag mooy leçon de vie daf ñuy permettre chaque jour rek képp ku ñu jëli rek dinañ mën a am dara loo xam ne dinañ ko jàngat ci moom. Mm-hmm. waaw ma waaw parce que nit ku nekk. Mhm. boo fàtte li la fal da ngay fàtte la folli woon. fii bi ma fi ñëw dafa am ko ma fi nekkal muy sama borom kër. Mhm. moo ma jàppale fu ma yegg tey gannaaw yàlla moom la àddina yëpp xam nañ ko. Mhm. dafa na ne rek lu may arranger rek lu mu lu gën ci man rek loolu laa war a am. ku ma waxaan dara sax day changé dem yoonam mer. kooku moo tey lu ma am tey gannaaw yàlla moom la moo ma formé moo ma jàppale dëñ ma ma toog ma di ko ñaanal fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge ko yàlla naka njabootam yëpp ñaanal yàlla fekk yàlla xare ko na àjjana oyofal suuf si kawam li mu raal dara ci njabootam yàlla na ko yàlla def mu jiitu ko fekk ko ci bàmmeelam maa ngi ñaan yàlla su fekkee yàlla bëgg na ma yàlla na ma may biyee ma siyaareel ko yonent bi loolu rek laa ko deseel parce que chaque année mu préparé man mu gaañu man ma dem màkk su fi nekkoon moom laay jox biyee bi yonent bi nag maa ngi koy ñaan yàlla na ma ko yàlla defal si barke yonent bi sallallahu alayhi wa euh, ba tey rek defe naa kàddu yi rafet na liñ fi wax yëpp ay xéwal la suñu papa jooju nga xamante ni moo fi wàññeeku ñun tamit ñu di ko ñaanal bu baax a baax rek fa mu nekk gënal ko fii bu jógee suñu borom mën na ko saraxam yàgg ci sa loxo lool kàddu yi rafet na ñu lay jaajëfal bu baax waaye bala ñu lay bàyyi rek euh, dañ lay daal di laaj ñu laaj bu mujj rek muy que ni ñëpp xam nañ ni boo bootee ay nit dafay xaw a metti njiit dafa metti tey nga boot ay GIE ay groupement yu bari mm-hmm. ñu bëggoon xam est-ce que tamit am na ay jafe-jafe yoo xamante ni moom ngeen di faral di jànkonteel ci li nga xamante ni moom ngeen di liggéey. ñii dañoo gëm liggéey bi ndaxte yàlla dafa def sutura ñu am li ma rek dañ maa gëm. amu ci kenn ku may génn fii da doo ñëw ci kër gi liggéey liggéey bi nga xam ne moom lañ leen sant ku ñëw gan gu ñëw fi nga leen di fekk ku dem fi nga leen di bàyyi ba may def politique ba ma ni ma leen ne bàyyi naa politique dañoo ñëwaat toog si man kenn jàppalewuñu amul góor gu ñëw amul responsable amul kenn ku mës a taxaw fii indi million teg ko sama loxo lu ñu am maa ko ñaq man soxna kan ñëw jox leen ko ñu ngi nii toog samay nawle lañ ma su ma leen laaj seen dërëm kayit maa koy fay lépp maa koy def su ma ñëwee ne leen kaay leen ñu bokk suñu ñu jox alal boo xam ne sax dañ ma ko may dama naan leen lii laa am ñëw leen mm-hmm. jàng leen liggéey liggéey moo leen di avancer loxo buy tàllal di ñaan kenn du la ah. nawloo mais boo jàppee sa liggéey mm-hmm. am fulla am fayda taxaw ci bu sooba yàlla ak yonent bi fi nga bëgg nooy gis nga leen ni ñu mel namuñu daray nit soo yéegee ci kaw di xam lépp lu nit am am nañ ko siège yaa ci kaw matériel yëpp mais ñoo ko defal nii suñu bopp kenn mayuñu ko moo tax benn politicien mënuñoo yóbbu fenn ndax namuñu dara ñu ngi jafel suñu bopp <laughs> waaw waaw yaay ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon suñu maman Soxna Kane nekk présidente euh, li nga xamante mooy liggéey bi takku liggéey yëmbal noor hmm. mu kàddu yi rafet yi nga xamante ni yëpp yëkkati ko fi defe naa rek eh, dañ koy daal di rafetlu war waaye yaay booy bala ñu lay rek dañ lay daal di rek nga daal di tàggatoog ñi nga xamante ni doon seetaan ak laka ngay wax nit yi yaa nga xamante ni ñoo si tey waaw di kontaan ndaxte bi ngeen waxee a ngi fii ñëw mañ wax leen ko dama leen ne am na ay benn télé bu ñu war a seet si du tey ngeen fi ñëw mm-hmm. ñoo ngi yéen barki Demba Ndiaye Madaar ñoo ngi yéen fu nekk lu ñu am wala te dootuñu leen bàyyi de mm-hmm. lu xew yéen la ñuy wax mm-hmm. programme bu ñu fi am rek yéen yéen yéen ñu koy defaral bu soobee yàlla di sant la ma waxoon rek di santaan ñi nga xam ne samay rakk lañ ku mel ni ma rem Awa Diom mi ma yàlla yóbboo yëmbal nee naa la moo ma dalal kii ñaar ñi toog ay famille lañu Aïssata Sow mi ma fi ñëwee ak kee fii laa leen fekk ak sama rakk ji Adama jatu fay ñii ñëpp ñoom faat ko dañu fay fekk dëkk bi daal su ma yeboo ma ne la fii ku fi ñëw man nga fi fekk te maa la dalal indi groupement bëgg leen a wan yoon sonn nag ba bëgg a dee mais tey yaal maa ngi sant yàlla bu wér ñi bañoon nangu nañu ñi nangu woon it ñi ngi waaj ñëw te fatt nañ suñu bunt doy nañ sëkk jarul kenn di ñëw li ñu mën moom ñu ngi ko defal suñu leen ci moom la ñu wéeru moom moo ñu yor bi ko yàlla laataa indi fii nag yàlla damaa boole woon ak moom ca yëmbal kër papaam mu nga yëmbal mm-hmm. mais xamante woon woon foofu koñ bi ma dëkk man la ñu xamante mm-hmm. ba am na doom yoo xam ne ci suñuy loxo la juddoo ba lu muy def ci mba koñ bi daf may oo mm-hmm. dëkk naa fi kër ma saat fukki at ak ñett mais lu muy def def may oo ma ñëw mhm. bokka ci suñu bi jotee ma ñibbi ba yàlla indiwaat na sama dëkk ci sama kër mhm. lu ñuy def it daf may oo ma jóge sama kër sama famille ñëw ci moom mhm. muy sunu mag junu jàppale junu tëya di uti di nu indil ñuy séddoo fii la ñuy liggéeya lépp muy lim la wax léegi muy nit ko amul benn problème rakkam laa mais su ma gisee ci moom lenn dama koy oo ci néegam doxaleel nii doxaleel nii te boobu ñëwagul woon fii ba tey njaboot googu ñu yàlla boole mm-hmm. suñu njaboot di benn parce que nee naa la ay doomam samay dooma leen yoroon ba yàlla indi ko fii mm-hmm. njaboot gi di benn léegi rek am na ko nekk ci piron bi sama netti la danaan tànt tàn mm-hmm. ma moom mu tëye ñu yiir ñu jàppale ñu dëkkoon nañu yëmbal caabi rabitaay ma man la ko daan jox xanaa loolu may jëlal togg man la ko daan jox parce say naa li ma ba nii fii su ma soxlaa oo ka bu ma soxlaa oo ma amul benn problème uti indil nu lan nekkee moom mhm. ñun ñi ñëpp benn lanu koñ bii lan dëkk man rek maa ci dëkk yëmbal mhm. mais ñi groupement bi yëpp fii lan dëkk man rek maa ci dëkk yëmbal te su ma fa gisoon lu jar ma di fi ñëw mhm. damay toog sama kër wala mu wanoon ma leen na lu jaaduwul damay toog ci sama kër nee naa la léegi man maay sëtam moom mar xëri jal moom mar xëri moom mar mareem sama maam daawul jaay da daan maye yaay dooy rek nekk fii taxaw dooy na. dëgg la kon yaay boo ñu doon wax rek. ci ki nga xam ni yéen ñi ngeen xam ne yéen na fekk si fii. dañ leen di sant di leen gërëm. li ngeen def rafet na. d'accord ñu lay gërëm bu baax di sant yow tamit benn rek euh, moo boo ñuy wax benn jikko bu la gën a neex ci ki nga xamante ni moom mooy ki ñu fi tax a ñëw tey mooy jikko bi ma gën a neex ci moom mooy. bëggul kenn meer. gën naa boole ñëpp. te lu mu amit bokk ak ñëpp. loolu ma gën a neex ci moom baneen bi mhm. mooy li may doon doon xale mhm. mu mag ma fuuf su ma kaw yee daf may déglu man it dama koy topp mhm. dama koy topp ci lu ma neex dama koy fekk fu mu nekk ba bésab tey jii li ma gën a neex ci moom bëggul kenn mer su waxoon ak man mii léegi ma mer. Mhm. léegi dina juboowaat ak man. dina defaat lu rafet loo xam ne. mer mi day jeex. ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal. Mhm. di ka ñaanal jàmm ju bari nag. Mhm. dund nag ba sunu allaaji bi ñu yoroon ca yëmbal yoraat na fii. yàlla jox ko bi yëpp màkk bi mu ñaan yàlla na ko saa borom yàlla may. ba mu ajalika. te yéen it yàlla defal leen jàmm. di ngeen fi ñëwaat. incha allah mbooloo maa ngi. incha allah waaw Euh, maa ngi leen di ziar di leen jox yéeguwaay bu mat sëkk dina alhamdulilahi rabil alamin ndax yaakaar naa ne lii euh, ñëw naa fi ñëwaat naa fi ci sunu doom ji nga xam ne tey ji moo ñu indi ci seen média bi nga xam ne mm-hmm. euh, defuñu dara lu dul jàppale soxna mm-hmm. ci compétence am mm-hmm. dama koy saluer bu baax a baax a baax waaw yaay booy eh, ñu daal yi lay bàyyi rek ci gàttal rek. nga wax ñu tuuti rek sa diggante ki nga xamante ne mooy seen présidente. waaw euh, man euh, maa ngi tudd Awa Dieng. Mhm. nekk ci mouvement pour l'intégration et le développement de l'Afrique. Mhm. MIDAC. yàlla dogal euh, soxna nekk sama mag daan ànd ak sama mag. Mhm. sama mag ku nekk xam na ko fii muy Fatou Kiné Dieng. na yàlla oyofal yaram bi. Euh, ma doon nit koo xam ne. damay saytu doomu aadama. ci sama leadership. damay seet ki nga xam ni dafa am compétence. am leader rigueur am grandeur. Euh, nekk actrice bu mag muy ajaa Soxna Kane. di liggéey loo xam ne ci département waxuma la département Kër Massar. mais au niveau national. ci liggéey liggéey bu am solo. ci euh, di former femmes yi. Mhm. te dañuy faral di wax naan booy may nit ki jën jàngal ko nu muy nappee loolu la jàngal groupement femme bi nga xam ne tey moom la samp fii boo ñëwee fi sa xol dafay sedd parce que jafe na femme leader. bu ay nitam gëmee nii. nga xam ne fu leen xooloo rek la ñuy xool bu ma ñëwee fii seen biir sama xol day sedd ndax euh, gis naa ni ñu nu bëggee soxna ndax nekk naa nit boo xam ne bu ma nee tekk xool jotaay dinaa xam. kenn ku nekk naka nga taxawee mais gis naa ni ba ma fi dalee ñëw ba léegi dañoo bëgg soxna soxna sama sœur la man maa ko bëgg sama bopp yàlla dogal mu nekk mu am compétence boo xam ne moom laay wër ci doomu aadama mooy dëgg dëggu tey def jub di jubal macha allah macha allah lii muy def fii boo wëree département Kër Massar mhm. bëri amul moroomam fii macha allah amul moroomam am compétence am amul leadership am amu fi kon boog dañuy sant suñu borom bu baax a baax ba ñuy fekkee jotaayam bu mel nii mhm. soxna lépp lu muy def xol la koy defee femme yi yaakaar daf leen a bëgg ba gëm des fois dama koy woo ma ko soxna jëlal pause tuuti nga noppalu mhm. mais talul lekk talul naan pour la ndam rek mhm. ak jàppale socialement nee naa ko da ngay yàlla ci biir jaamu yàlla yi mhm. parce que man ci noonu lay dox moo tax képp ku koy dox dama lay bëgg. Mhm. am na solo macha allah macha allah eh, kontaan naa lool. ñu gàttal rek mhm. boo ñu doon wax ñaari critère rek. yoo xamante ni moom la gën a marqué ci moom lan lay doon. critère bi mooy euh, bëgg doomu aadama. jullit. te bëgg waaw góor bañ ko ko mere. macha allah macha allah li ñu seet ci doomu aadama lépp mi ngi ci moom. Mm-hmm. dañ koy ñaanal rek borom këram bii muy ñaan ci kàttanu yàlla bu déwénee. Mm-hmm. mu ajali ko màkk. parce que mo nek ci xol gis na sank bam koy wax rongo ñom tek na ci dënnam parce que daf ko gëm parce que jëkërëm da ko soutenir mm-hmm. jabotam tam ñu leen ni ñaanal ñu baña a dara ci ginnaw yalla may ko wër ak wérle ak gudd fan bu sax dàq yàlla lafal ko cet waaw ñu lay jaajëfal bu baax euh, ñu daal di dalal suñu benen mama euh, mu nek ki nga xamanteni ne ñu suñu suñu yaay ñu diko ko asu Assou Diouf mu nek présidente mom tamit vice présidente euh, ci li nga xamanteni moy GIE andu takku liggéey bi nek fi ci yëmbal Xool Noor yaay booy ñu leen nuyu di la ziar ah, maa ngi leen di fay salaamaaleykum maa ngi leen di fay bu mhm. ma waxee ci waxu soxna kan dama ci gën sawar ndax parce que dama dafa ñëw fii mhm. fekk si ma bu mu fekk tamit bu mu berda mhm. Afrique politique la njëkkoon def bu muy def politique mu bàyyi politique lii maa waaw léegi politique la doon njëkk a def mu bàyyi politique ñëw ci développement bu ñëw ci développement bi ñun tamit dañu gis suñu bopp mhm. ndax gis nañ suñu bopp suñu kees bii ñuy liggéey nii mhm. ren ji buñ koy toj mhm. ñeenti million lañ ci génne te ñëpp am liggéeyu madaaram bii ñun ñëpp dañ ciy gis suñu bopp ndax parce que lu mu am dañu koy jox ñun ñëpp ñu am ci moom tamit dafa baax baaxaayam bu moo tax kenn mer bu sañoon ñëpp ñooy am xam nga loolu ma wax wax ji mu gaaw moo ndax parce que bu sañoon ñëpp am mooy moom lu am doomu aadama yëpp dañ ciy am bëggul kenn mer mhm. liggéey bii ba mu koy liggéey ak léegi daal dañ ciy gis suñu bopp mhm. luñ ci bëgg yëpp dañ ko ci am waaw dañuy def formation def yëpp mhm. te yàlla ak moom la day dem lijjanti ñëw indi ñu liggéey ñu bokk yëpp liggéeyi ko waaw am na solo waaw liggéeyam moom wax dëgg ma allah liñ ci bokk moom am na solo macha allah bëgg na ñëpp bëggul kenn mer te yàlla na ko yàlla jàppale mu toog fii ba ñu ñëpp mën a dem màkk comme ni mu demee màkk yàlla na ñëpp def noonu di dem màkk njabootam bii lu ci bëgg yàlla na ko yàlla jox euh, ñuy rappeler internet yi que ni ñu ngi mag bi nga xamante ne moom la ñu woowee leçon de jox euh, ki nga xam ne mooy su ñu yaay Ndeye Fatou Coly ñu bàyyi ko rek moom tamit mu sàddu ay kàddu euh, boo ñu doon wax comme ñu ko ñëpp waxee rek defe naa rek li ñëpp wax mooy dëgg ñu naan nit bu ñu nee na naan ndax mbokk yee ñoo ko wax ñu bëgg rek daal di daanalee say suñuy kàddu ci yow lan nga ñu mën a wax ki nga xamante ni mooy seen njiit. waa asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di jaajëfal di leen jox seen yéeguwaay bu kawe kawe man sama wax daanaka du bari ndax li ma war a wax yépp wax nañ ko man li may wax mooy ajaratu soxna kan xamuñu lu dul ci moom baax ak dimbali ak di def lu baax te di ko wax ku sonn mooy jiitu dëj bu amee mooy jiitu bànneex bu amee mooy jiitu macha allah ñu koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram réccuwuñu daal liñ toogee ci basang bi. wax dëgg yàlla ndax lekkul dara bàyyi ñu demul fenn tam bàyyi ñu fi mm-hmm. lu mu xam wax ñu lu mu am jox ñu mm-hmm. may ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko mboolem julit bu toog fii yéen itam di leen ñaanal seen liggéey yàlla na ko suñu borom yokk ko ba ngeen gis ci seen njariñ daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam merci beaucoup euh, mbokk internet yi kon defe naa rek euh, li moo nekkoon seen émission leçon de vie bi nga xamante ni la système amita moom la leen indiloon tey euh, kon defe naa nag kontaan ngeen kàddu yi ñu fi jëlee rafet na ñuy jaajëfal képp koo xamante ni rek fekk nañ ko tey fii ci nga xamante ni mooy GIE ànd takku liggéey yemal noor kon nag dama leen di jox dig daje ci le de bi beneen yoon ak yeneen yi gan Kane caa ngeen jëf.